taxaw sunu papa yi sunu yaay yi donc di leen wax ko ne seeni doom seeni rakk seeni seeni mag ñoo ñëwoon tey Gossas wàcc ci gosaas pour lan pour xeex àq ak yelleefu étudiant parce que étudiant yi euh, quoi qu'on puisse dire dañ leen a dañ leen a dañ leen a maanaam bàyyi ci ginnaaw dañ leen a euh, dañ leen a euh, mettre en rade te loolu noonu du yoon ñu ñëw nag tey vraiment may félicité ñii nii sama ginnaaw muy les étudiants dañoo sacrifier leurs études tey dañoo wàcc ay examen suba dañoo am examen mais dañ ko faa wàcc rien que pour ñëw xeex àq ak yelleefu étudiant donc ñun en tant que étudiant sonn nañ que di nekk Dakar di nekk ci condition yoo xamante ne nii c'est des conditions misérables condition yoo xamante ne nii tey jii nii du ñu permettre ñu jàng normal donc moo tax tey jii nii ñu ñëw gosaas nag def marche boo xamante ne nii marche pacifique la yàquñu dara defuñu dara dañoo dem génnee élèves yi en tant que tel parce que amicale bi amicale communale la mais élèves yi ak étudiants yi ñoo ko bokk donc am nañ droit am nañ sañ-sañ dem kat génnee suñuy élèves ne leen ne ñun dañoo nekk si ay problème problème yi ñu nekk mooy lan problème mu logement appartement dañoo am ay euh, problème logement yoo xamante ne nii tey boo yi nii di jàng nii ci li sa Kharkanda Gossas képp koo xamante ne nii am na bac su ñëwee fële na la ci université Cheikh Anta Diop de Dakar doo am foo dugg te ñun tey jii nii ñoo ngi def liggéey boo xamante ne nii euh, doo leen ne neatamle que ne ñun doon nañ fi organiser ay cours de renforcement doon nañ fi organiser ay lu ne pour lan pour suñuy rakk kon tey jii nii dafa jot ñu am ay appartement am chambre boo xamante ne nii étudiant Gossas yi war nañ faa mën a nekk et li ma gën a metti li ma gën a metti tey jii nii ba waral marché bii nii mooy que ne boo demee Dakar fekk étudiant Gossas yi da ngay ruus comme sii que ne amuñu ay autorité comme sii que ne amuñu ay bonne volonté tey jii nii loolu moo ñu gën a metti moo tax tey jii nii ñu def li ñu def te nag pareeguñu ci joxoñ baaraamu tuuma mooy le maire Madiagne Seck parce que moom mooy le premier kii boo xamante ne ni tey jii moom la ñuy collaborer donc daf ñoo war a dafa doon koo xamante ne nii tey jii nii suñu mënul a jàppale ñu jël benn subvention boo xamante ne nii daf ñu koy jox alloué ko étudiants yi parce que loolu noonu c'est notre c'est notre droit dañu ko war a jox. tey jii nii ñu am nekk ji dans de très bon condition parce que ñin ñu koy jox gënuñu ñu koo yellool xeex bi xeex bi duñ ko yemale fii kase nee nañ leen euh, bii di ñëwaat disi cinq jours. dina ñëwaat ak beneen facette te étudiant bu ne la dina ñëwaat ak beneen facette rek nañ pare xam ne dinañ ñëwaat ak beneen facette te nag ñoo ngi ñaan yàlla loolu bu mu fi am parce que ñun ay doomi Gossas la ñun ñëwuñu pour yàq Gossas ñun dañoo ñëw pour defar Gossas ñun nous sommes les intellectuels nous sommes devenus euh, nous sommes euh, kii tenus que ne ñuy tenir discours yoo xamante ne nii discours yuy defar la mais pas pour yoo xamante ne nii day yàq. parce que Gossas sunu Gossas la en quelque sorte. dañ demoon nañ wuti autorisation bi ñu demee wut autorisation le préfet daf ñoo interdit ne doo leen marche pourquoi parce que nee nañ waruñoo génnee élèves yi ñu ne dañuy def trouble à l'ordre public est-ce que tey gis nga fi trouble à l'ordre public tey jii nii élève yëpp yi sunu ginnaaw dañ leen a calmer poser leen ñoom aussi ñu xam li ñuy xeex. ñoom aussi ñu ñoom ñoo pro ñoo porté volontaire ne dañuy génn ànd ak ñun ci xeex bi donc ñun forcé wuñ kenn ànd nañook ñoom tey jii nii ba euh, li ñuy xeex tey jii nii ñu xeexandoo ko ensemble. parce que am nañ fi le président du conseil départemental mais tey jii nii maanaam dañoo téye seen loxo politique bi da leen di emporter de de trop ba tey jii nii du ñu gersu seen i étudiants en tant que tel. parce que amicale bi quoi qu'on puisse dire amicale ab politique la amicale bi duñ ko politiser xëy na nag mën nañoo euh, kii nii nangam sangam mais fii nii. tant que ñoo ngi fi dañuy xeex ak ak yelleefu étudiant maanaam le bien-être des étudiants ça c'est ça notre crédo donc ñun aussi am nañ fi beneen koo xamante ne nii mooy le PM Mohamed Boun Abdallah Dionne ex PM euh, def na cinq ans boo xam ne cinq ans presque six mois. tey jii nii mënuñoo am Gossas tey jii nii waroon naa dépasser ay problème de logement quoi qu'on puisse dire mais tey jii nii c'est honte c'est déplorable que nga dem Dakar fekk condition misérable yoo xamante ne nii tey dañ koy dundu boo demee Fass appartement Fass boo demee Médina tey jii nii da ngay rus bugguma sax man bugguma sax di fa dem parce que boo demee gàcce moo lay jàpp en quelque sorte parce que ni ñuy tëddee baaxut euh, trois mois de cela ñun chaque chaque presque chaque jour dañ leen interpeller là-dessus chaque jour dañuy dem dem nañ si bureau du benn du ñaar dem nañ si président conseil départemental du benn du ñaar PM recevoir nañu dig nañu chambre nag ba léegi gisuñu dara. ba léegi gisuñu dara ay wax la PM dig nañu saana chambre Mouhamed Boun Abdallah Dionne man la recevoir oon ma toog ak moom wax ko problème des étudiants mu ne sur le plan départemental ma ne ko noonoo ñun communal moo ñu ñor en quelque sorte donc waxal si communal bi ba pare parce que nee nañ bay sa weewu tànk. donc kon war naa mën a defal étudiants yi dëkk Gossas ba ñu am appartement bala ba ñu am chambre euh, ci fële ci ca ca Dakar